Hey yo, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur la BTV, Barni toujours visible. Aujourd'hui, nous voici à Rifisque de Kamam Pumbalamba et de Kabinga Khamnateji, à Jam, full of fire de Nyofi Yewo, donc. Et sous rapport, mesdames, messieurs, nous sommes un, un, boy, petit de talent, hein? je le dis et je le répète, il est petit de talent, euh, finaliste Rap Rêve Edition Number 4, hein? Rap rap, une compétition d'éducation de la gérée de Gouverte. Mesdames, messieurs, l'année qui est Kamnateji, moi, M The Finger, nous lay waajalee li nga xam ne moy final bi nga xam war na dox am le 20 janvier à la place publique de Barni ñu sét ci ma mail Mr Fenga Fenga naka waar Yeah, salaamaaleykum Mahira. muy Kool ñu ngi ziar. Koule wu mel ni sedd guy nii nu mu demee nii baay. waaw mais dara xool gars rek. Ah. mais sinon na ko dégg. sant yàlla bu baax a fekk la ngay nelaw nga noon nelaw ma quoi dama loon julli quoi mais fi nga noo mënee loolu. yow coppeel kat nga. mais sinon lépp jàmm. sant yàlla bu baax. maa ngi a baax. yeah salaamaaleykum. Tëngéej waaw waaw some side ñu ngi ziyaara ñëpp di jox kenn ku ne wàccu waayam di ziyaara xam nga gox bi yëpp xam nga di leen masawu aussi tamit di leen baalu àq di jiital si nuyoo bi xam nga ziar beeg lépp lépp lépp ma koy jiital di jiital sama sëriñ Mawlana Diané Baay avant tout léegi di ziara sama yaay di ziara famille bi di ziara waa saat bi xam nga di ziara doxlu doxlu Sénégal yee rappelé foo la. mos nga fooyee fooyee bal bi <laughs> <laughs> yow daan ko fooyoo ñu may noggatu rek yow xam nga ni <laughs> taxaw maa yow ñu xool kuy ba kuy kuy ah, nekk de. Ah? <laughs> Ah, après ñu ñu ñu ñu dem ñu xool maa yow. <laughs> fi euh, la ñu nga bokk ci li nga xam ne mooy ñu finaliste yi nga xam ne ñoo euh, bokk euh, ñoo ñoo ñoo war a dem final ci li nga xam ne mooy compétition rab rab bi tey yow en tant que artiste yow nga dem ba nekk final lan lay def. non jës li may wax rek final moom xam nga li may wax rek ñun moom du du loo xam ne nii xam mm-hmm. dañ koy. maam dañ ci am ay ay ay njaaxare quoi en fait donc saa noonu la mës a demee suñu côté xam depuis suñu première participation si ay compétition wareeva donc nii la mës a demee quoi te loolu noonu yëpp damay jàpp ne mbiru yàlla la quoi tey nga imaginer nga jógee bac aar xam nga ba waaxi wurus ba fidax euh, ba tey jii nii ñu ngi nekk toll si rap rev xam dama naan mbégte la quoi parce que à chaque fois damay jël lépp ñu delloowaat ko yàlla parce que du sama njàmbaarte du sama dara mais ndimbalu yàlla la quoi yàlla moom moo si teg loxo affaire yi di dem xam nga malgré sometime nag affaire yi day difficile mais quel que soit alpha yàlla moo siy teg loxo muy dem quoi parce que bu dee talent ñun jooyu ñu talent jaay ñu jooyu ñu dara xam gëm nañ ko xam nañ tamit fi ñu teg suñu bët quoi waaw comme ni ma ko doon waxee rek si benn verre xam xam fi ma jógee xam fi ma jëm fi ma jógee bari li si

xam nañ ne ils ont du talent. Mhm. compétition bi man je je vois que dafa serré quoi nii la def et tey en tant que finaliste. ba nga jëloon premier si li nga xam ne tey jii maanaam mooy ñu njëkk a euh, euh, final qualifié mhm. euh, final. tey nan nga war a mën a waajalee li nga xam ne tey jii maanaam mooy sa final bi parce que tamit gars yi ku la xam ne gars yi ñoom tamit ba ils ont du niveau. niveau bi amul kii mu ëpp niveau sa morom kii nii la def. <laughs> non jës li may wax rek ñun suñ demee si demee suñ demee si demee final yàlla dogal ñun ñu njëkk génn ko ndam la du ndam parce que yàlla moo mooy amal ay mbiram quoi te gis nga mbir bu ne yàlla day jël maam du du ne du ma ne day jël. këcc ak yéen seen borom yi ay affaire day yàlla yéen da ngeen bëgg yow trop ah, Baay ay affaire day yàlla yàlla yàlla yéen. waaw waaw ah, ah, kon kon yàlla ak Baay Ñas ñoo si teg loxo donc <laughs> comme wala ko waxee donc moom mooy jël ay mbiram di choisir quoi ñun amaana à chaque fois dañuy bokk si ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy choisir en tant que tel en tant que des artistes te booy si nekk yëpp. am na si ñoo xam ne xam nañ leen am si ñoo xam ne suñuy am na si ñoo xam ne xam nañ ne carrément ñi am nañ talent parce que tase nañ ay compétition wu compétition wu compétition mm-hmm. xam nga euh, te tey jii nii damay damay respecté ki nga xam ne ni mooy Ruel Taf quoi parce que maa moom bokk nañu compétition compétition yàlla dafa dogal nag waaxe wurus challenge lañ xamante waaxe wurus challenge ba ñu jógee ñu dal si fidak si hip hop donc tey jii xam nga sant yàlla quoi tey kon kooku noonu tey man mënu ma ñëw taxaw sama kanam sama si kanamam ne dama koy minimiser parce que tey talent kese la fees tey waxum waxuma la sax tey benn exemple bu ndaw la rek si biir compétition bi xam nga ba ma bokk xamoon naa ne du yomb. ba ma siy bokk xamoon naa ne du yomb tey ku wax wax compétition euh, wax fief. Mhm. ak wax compétition wax gannaaw tey mhm. saa rab bi dafa dem ba dafa toll fi nga xam ne tey maanaam mooy affaire de nawetaan la mhm. euh, sa sa sa koñ waa sa koñ mooy waa ñoo lay ngemb mhm. tey ñu ñëw fi nga xam ne tey mooy Rufisque plus particulièrement muy GM muy Guy Mouride tey euh, lan lañu mën a xaar ci gannaaw ñi nga xam ne mooy si staffu euh, MD Finger nan la ñuy préparer li nga xam ne tey maanaam mooy final bi non Jess li ma lay wax rek compétition bi ñu ngi koy préparé maam ni ko doon préparé dès le début moom lañ koy préparé waat

xam nga di leen mastawu si mbir mi quoi xam nga ñu ma koy waxee rek juddu si zaahir barñi yaroo juddu waat si baatin barñi màggee waa tëngeet donc kon tey jii man foofu noonu laa bokk quoi en fait donc fii nii niñ koy waajalee comme niñ ko doon waajalee dès le début moom lañ koy waajalee final bi nag comme niñ ko waxee puisque dañ ko def journée ouverte quoi mu ubbeeku donc te lool dañ siy sant yàlla parce que loolu noonu lañ yàgg xaar parce que tamit nga ñëw taxaw nii rap rap kanamu jury après jàll dem maam c'est bien beau quoi mais su nekkoon en face publique bi nga koy yëg ñoom ñu koy yëg xam nga xam ne kat maam foofu noonu ke la ñuy jël quoi mu dégg maam ki ko gën a mérité ñu jël ko ñu jox ko quoi man loolu noonu laa gëm xam ñu dem ñàkk ko alhamdulilah ñu dem jël ko alhamdulilah mais ñun dañu gëm ba fi ñu teg suñu tànk nii mooy compétition bi ñu ko moom. yow yaa yow yow yow booy fils booy waaw gis nga mais fi nga fi nga fi nga nga yow ñema nga taxaw ak téléspectateur wala sama rappeur ne compétition bi yow yaa ko moom. non jës. amul jës non amul jës amul liggéey damay liggéey ñëw est-ce que mën nga ñëw taxaw wax ak gars yi ne la compétition bi moom. non loolu fi ma teg sama tànk loolu du dañ. loolu bàyyi moo ma fa tegloo sama ma teg fa sama tànk. bàyyi fa génne fa bàyyi bàyyi na nekk fa. déggoo lu ma la compétition bi dañ koy jël. yow loolu nga wax yow. waaw kon yeneen rappeurs yi si des ñoom xamuñ dara. waxuma xamuñu dara de. <laughs> yaa ko wax de. man <laughs> doo ma jaxase ak benn rappeur dama ne la condition bi dañ koy jël <laughs> loolu laa la wax. yow yow am nañ talent. bi yow nga ne yeneen rappeurs yi booy amuñ talent quoi yow yaa mën a. ñoom ñëpp. am nañ talent yaa ngi dégg mais yàlla ki si dàqaraf yàlla na ko jóg compétition bi loolu noonu moo gën a dee sax. waaw ah, loolu nga wax quoi ku si dàqaraf yàlla na ko jël. aja ah. euh, comme comme ni la ko comme niñ la ko waxee euh, nekk nga final nga sa gars yi yéen a ngi koy waaj staff bi ndax ñu ngi waaj ndax instant bi plein air la. public bi ñeppay tew est ce que bu nga xamne comme ni nga ko euh da ngeen don tok nek ci salle bi gaay jox leen affaire ngeen ngeen recognize ah jouer ba paré ñu jox ñu xamne ne ki moy lool mais ins bi nga xamne tay public bi day taxaw ñepp taxaw ah parce que ku nek tay ji dina indi wa fief mi ñew ñu ñew taxaw mais est ce que ce fief ñom paré nañ ndax ñu ngi wajal final non lool du deng dama la wax rek xam nga ñun demb lañ am date déjà

di def ay procédure par rapport a final bi na a duggee na war a def lan ak lan ak lan ak. est-ce que yaa ngi répété. kan. moo tax mais mais moo tax nga doon nelaw quoi. waaw billaay walaay saa yi dañoo tas de. ñun mbéy nawet final bi sax gaañ ñu ngi si nekk. bien avant compétition bi ñu nekk final quart de ñu jot demi finale jot ba instant bi final moins de quinze jours tamit sa waay suñ si nekkul tamit dañu war a wax ak ñun de. ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti kii xaw ma juróomi kii la juróomi juróomi cent mille. aja juróomi cent mille muy cinq cent xaaral deyla ko bo bo gañee almasi cinquante waay. <laughs> waaw lolou du metti. <laughs> Eh, benen affaire bi ah, tey euh, bo don lancer ben message par rapport à l'endroit des autorités yi nga xamné tay ño nek fi au niveau de Rufisque euh, wala ñi nga xam moy bonne volonté mais les hommes ressources euh, tay Ben message nga leen lancé pour ñëw jàppale ko xam final xamné na aussi du yomb sur le plan mental sur le plan psychologique lepp da nga wara mëna paré pare mais également sur le plan bi nga xamné tay moy des supporters aussi da nga wara mëna paré pare donc yan message ngay laajte ngay lancer ñi nga xamne tay moy les autorités euh, étatiques et y compris aussi les les les les bonnes personnes pour ñu ñew jappalé ci li nga xamne tay tey manam moy final donte xam nañ ne mos nga yag nga dem final te wo ben nit hein ah, diko recognize. non loolu mo su dañ waaw léegi nag li way wax rek euh dañuy sant yalla bu baax a baax baax di wo ñëpp ah. donc particulièrement sama sama site parce que ñom tay jii nii ginnaaw yàlla tey jii nii ñoom ñoom laa am quoi en fait donc. des fois nag xam nga mënut a ñàkk quoi parce que xët-xët yeeg affaire yooyu noonu yëpp mënut a ñàkk parce que fii yëpp bari nay talent. mais li may wax rek maa ngi woo képp koo xam ne ni yaa ngi yeewoo Guy Mouride avant tout képp koo xam ne ni aussi tamit euh, yaa ngi dëkk biir Tëngéej quoi. xam nga ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ziyaara di leen jox seen wàccuwaay donc di o Assane xam président bi nga xam ne ni moom mooy pencum Korobaan guy murit di ko o ne ko tamit business bi yàgg na si jàpp na si ñëw jàpp xam nga Ibulaay aussi xam borom ndékk électronique moom tamit xam nga si si mënee ñëw jàpp tamit mu jàpp si waa te xam naa tamit da siy jàpp ndax yàgg na see jàpp yàgg na see jàpp donk góor gi saw Moussa Faye xam nga ak képp koo xam ne ni yow yaa ngi yeewoo biir guy mu quoi en fait xam nga Pape Konaté Baara Wéy pencum kolobaan guy murit bi yëpp képp koo xam ne ne yow yaa ngi yeewoo guy murit yaa ngi yeewoo tëngeet xam nga yaa ngi yeewoo waaw ndakaaru quoi soo si mënee jàpp nga ñëw jàpp si quoi parce que tamit final bi xam nañ ne tamit suñu désir la quoi maam li gars di wax des fois gaynde guy tëdd di nelaw yàgg si nelaw quoi après day xaaju xaaju de telle sorte que ne sa li dañoo jit maam dañoo am dañ ko bëgg a jël quoi en fait parce que loolu noonu suñ ko jëlee maam du pour dara du pour dara mais tey fii nii ñu am nii tey jii nii maam soxla na yu bari te à travers yooyu noonu rek lañ mën a demee tey pour représenter loolu noonu ñun tey fii nii rek ñu nekk nii rek yow xam nga ni demee donc li may wax rek mooy ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp si parce que suñ ko jëlee aussi du sama ndam man kese ko ndamu mu Mouride la ndamu Tëngéej la quoi en fait. tey ba benn quatre mesures bi nga xam ne moom ngay waajale affaire gaa yi tiit ma xool ndax saa waay pare na lyricalement quoi. Eh, yaa yaa. yow hip hop Galsen dafa bari kéef lu ñu dëkkee di wax mosul fen si seen i jëf fëk tëb maa nega mënoo ñu disturb ñun ñoo fi nekk di ko xëndal daara lañ ci ruwaab soo ko gëmul kam jàngal seen buumu jaam doole ñu noot mbedd daf ñu sas dafa jot ñu fay ko bor bi waxu xol la na ko dégloo xol mos ñu jóg si bàyyi suñu tool le microphone dafa leer ñor na xomb jot na tey i ñu teg si point bul xànjoo kuuj gisuñu nga taal zon ah check it <laughs> Le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs, le 20 à la place publique de Barney pour cette grande finale dénommée Rap Rêve. On était avec ma main, Mr. MD Finger tout de suite. Nous sommes 7 Benen Boy, Siren Vab, Siren Jab. D'ici là, portez-vous bien, Braxer. Encore une fois, mesdames, et messieurs, bienvenue. Nous voici de retour à Baranastri, ici à la place, une place mutique. Mesdames, et messieurs, l'histoire est Inch'Allah, le 20 janvier, Inch'Allah, la grande finale de Rap Rêve, Rap Rêve, une compétition d'éducation, de loisirs. Et sous rapport, mesdames et messieurs, nous sommes avec euh, un boy qui a représenté Barni dignement et fièrement. Oui, depuis Jamais à cette compétition, il s'est mouillé le maillot pour nous montrer qu'il a du talent. Et sous sa première mise, nous voici en finale et on va voir. Ce boy, il répond sous le nom de Omzi S7, ici de Bargne, Omzi la roi. Nice, nice, big up, my big up, barney up my big up, barney up Ici Omzi S7, le nègre. Yeah, finale la 4ème édition, oui. Et nous, gars, venez à moi, nous, nous, fini, le lieu, fini. yee à domicile mais yow à domicile yow nga war a defee ko sa koñ nga ñëw ba ci fi ñu ko war a defee final nga ñëwee foofu noonu. non damay damay ñëw pour <laughs> xam nga rek. <laughs> tiisal gars yi xam nga. tiisal leen wane na fii zone bi maa moom wala yaa gën a xam nga ñu ñëw ndànk def ndànk ñëw ñibbiwaat <laughs> yaa gën a xam. ça te fait ah de représenter Barni. Tayji amone boy na ci bokone yow tayji nga nek ben boy Bargny bo xam tayji ya dem final ci compétition Rap Rêve bi comme tayji bu waxé waxee Rap Rêve bi nekkatul au niveau régional communal mais c'est au niveau national parce que y a pas mal de euh, art euh, d' artistes yoo xam fait partie euh, nek nañ ci yenen région yi tay ñëw compétir yow fi nga xam tayji comme ni nga waxé à domicile nga nar représenter Barni. ça te fait quoi. Bah, fierté rek fierté parce que ñun duñu tiit parce que xam nañ am quoi. ok xam nañ am am talent bi. incha allah incha allah ak quelques si dir bu gàtt rek dinañ gérer dinañ ko dinañ ko yëngal dinañ ko yëngal mais fierté la quoi parce que bañ moom rek lañ am fii rek lañ am fi lañ màggee fi lañ xamee lépp. daanaka rab fi lañ dabee sax donc bu ñu amee opportunité représenté bañ dañ koy def dañuy dañuy tenir drapeau bi ba si kaw yaa ma gën xam. mais mais Omzi c'est-à-dire man ma bëgg a dégg laa déggul c'est-à-dire le fait tey euh, pas mal d'artistes ñi nga xam ne tey jii ñii ngi dëkk Fass ñii dëkk fi nga xam ne tey jii maanaam mooy euh, euh, Mbour mhm. ñii dëkk wëree ba ñi ay Tivaouane Peulh TP tey ñoom ñu ñëw indaale seen drapeau dëkk yow ñu fekk la sa biir fier te tey ji bokk bëri woon ay booy Bargny yoo xam ne bokkoon nañ ci compétition bi mhm. tey yow yaay ci benn élément boo xam ne yaa ne nekk Bargny tey lan la lay def tey yow en tant que rappeur nga war a gars yi war a ñëw ne dañuy jël ndam li yóbbu ko seen seen town. tey ñuy fekk la bàyyi à domicile. waaw ay réew la may def damay ay réew may def mais quand euh, am nañ ci droit bi mën nañ ñëw ba fii pour def lu ñu mën parce que rappeur loolu la am quoi. Mhm. waaw mais wax dëgg yàlla affaire daf may galvaniser rek parce que sama dëgg lañ ma fekk ñu ci dara fii lay des incha allah. mais Omzi est pare na. mentalement psychologiquement est-ce que Omzi pare na. Omzi amul lu muy amul lu muy tiit Omzi bi mu paree depuis commencement compétition bi la. dañuy fóon yi rek instant bi pour yaa ma gën a xam neexal affaire yi mais final bi suñ final la incha allah dafay si lan la ko teg si talent skills si jàpp. si rhyme si fan na moom essence bi final bi fii si lépp si lépp parce que ñun lépp am nañ ko gars yi gis nañ gars gis nañ gis nañ bu baax li fi xew si quart de finale bi ak demi finale yëpp. Mm-hmm. gis nañ wax la moo la moo fi parce que gis nañ lépp lépp nañ ko confirmation incha allah dañ koy def ce vin là hmm. dañ koy confirmer parce que gars yi dara la feeling du dara en fait gisuma ko gisuma ko si ñun la dee quoi donc dañ koy ok dañ koy euh, beneen bi mhm. est-ce que ça public parce que ñeneen gars yi nañ indi ay car ñëw pour représenter seen localité ah, ici à Bargny mm-hmm. yow nga war a accueillir leen na leen essence bi fii maa moom fii sama <laughs> territoire la fii yaa moom public bi est-ce que gars yi ñu ngi waajal li nga xam mooy final bi waaw ah, gars yi ñu ngi koy waaj bu baax gars yi ñu ngi koy waaj bu baax mm-hmm. di leen di leen di leen shadaawat bu baax encore wax ne incha allah gars ñu ñëw en masse fii nii yàqate fii nii yëpp yaa ngi gën a xam ñu jël affaire bi parce que gars du ñëw ak seeni loxo yi neen dinañ indiwaale dara donc ñun fii lañ dëkk nañu wane ñu wane ne xam ban ñi ñu ñëw yëngal fii bu kenn dégg bu kenn bu kenn loxal bu dara yomb yaa ma gën a xam ñu gérer affaire bi yóbbu ko. waaw noonu lay demee. noonu lay demee. Ah. donc également euh, j'espère que tey bii moo nekk sa première euh, euh, compétition boo xam ne moom nga dem. si si waaye bi mooy sama première compétition si laa war lancé waale carrière ça parce que man sama carrière est bi demewul non parce que lancé wu ma ko en fait génnewu ma ben sound. defu ma ben clip et. non sérieux mosoo génne sound. non defaguma dara defaguma dara génnewu ma ben sound bi mooy son première compétition. damay kii rek damay damay. non non non mais MJ qu'on se dise la vérité. Euh, euh, euh, yo kañ nga dugg ci hip hop banane naan instant yo defo sound defo dara ñëw compétition dem final alors nu démé ni sama école gi nii c'est ce jangé 2022 bi la commencé bind ay textes 2022 bi mais mosoo dugg juste joo prise. benn yoon mooy bi may bi ma leen di jëf balancer sama sangoon pour bokk. what the hell. mais ça c'est quoi ça. ah mais moo am en fait affaire bi dafa naturel te ñun quoi don la on peut dire dafa naturel donc bu ñëwee am ci def si li ñu war a def yëpp incha allah ak. yoon bi xam nga mooy loolu préparation yi si waree bu ñu ko defee incha allah dañuy nekk si kaw. mais nga foog ne instant bi est ce du la manqué benn expérience boo xam ne tey ji moom nga war a moom nga parce que yomboon na lool ñu tëj barrières yi nga nekk si salle bi def benn affaire yi gars yi génn joxe verdict bi nga ne yeah nice mais public. te mosoo yëg ci concert public bi taxaw ñu ne waaw dem nga gis nit ñi tiim la. om si om eh om eh, si nu fa demee nii ba nekk. non feeling la rek affaire bi mooy loolu. xam nga li may wax rek boo koy boo koy dund en fait du la def man gëmuma ne affaire bi dina ma def ay problème wala genre damay ñëw wane li ma war a wane parce que am naa talent bi dama koy ñëw jaay ko mu jeex tag gars yi déglu parce que ku déglu xam dofoo xam nga li may li may li may wax ah mooy loolu donc affaire bi du ma def dara du ma def stress xanaa peut-être pour ñi may topp rek mais amul problème dañ koy gérer public ak yooyu noonu yëpp mi ñu ko mais quand même c'est naturel daal <laughs> c'est naturel comme ni ma la ko waxee rek sama première compétition gi nii sama premier salon maa ngi ko def bi ma la bi may inscrire si compétition bi donc moo ngi nii final. dañ ko war a def première compétition mais messieurs mais écoutez mais ça c'est double là. Euh, euh, euh, yow en tant qu'artiste sa première compétition. nga jaante ko dem final. sa première compétition si nga soog amee sound. tey. expérience boobu mi nga xam am na ñoo xam ne yàgg nañ dem ci ay compétition euh, xam nañ fan lañ war a mën a def nii lañ war a def ba mën a yow tey ji ni avec euh, li nga jot fii nga jot a jaar ñëw ba final. Omzi vous êtes au de huit si ma ne me trompe pas sept yi nga xam ne tey ñoo dem final ku nekk mu ngi bap bàkku naan man ndam li fii FM la jëm ñu fekk si la sa biir temps nga accueillir leen dalal leen jàmm. est-ce que Omzi, mën na wax yeneen six yu si des mën nañ toog seen gaale ñoom on a ñëw wala. non xam nga ñëw nañ ba fii def nañ ay effort ñëw ba fii nañ donc euh, nañ ñëwaat rek ah lekk ba suur naan ba mandi ñëwaat ñu dalal leen ñu def concert bu nice affaire bi nice hein? après voilà gars fi mu jëm day des fii donc nañ ñëwaat rek ñu accueillir leen xam nañ fan lañ jëm fan lañ jëm ci lan nga ko teg quoi la fa laa a xam si lan ah, man dama am talent kon ñi ñu si des ñu si borom sii si mën nañ wax ne dañu xaar amuñ talent man am nañ yàlla daaxa rab mais man maa daaxa rab daaxa nii <laughs> non sëriñ ñi yaa daaxa rab non maa daaxa rab gars xam nañ loolu ah. gars xam nañ loolu maa daaxa rab ci bi <laughs> gars yi déglu leen fii tey boo doon lancé message à yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom tamit xam ne euh, ñeneen ñu ngi ñëw jugee seen dëkk war a ñëw représenté seen dëkk yow ñëw war la nga war leen dalal euh, tey lan nga leen di lancé ñoom pour ñëw pour ñu ñëw jàppale waaw dañ leen di nuyu au passage sax parce que ah, xam nañ ne mooy loolu rap xam nga demee fi noonu fii ñii surtout si tawan bi mais ngeen ñëw support ñu jàppale ñu affaire bi mu gën a nice parce que bi ñoo ngi gis ne moom gën a am ampleur parce que fii ak première édition bi ak yii nii déjà instant bii nii benn variété moo si am li si des ñëpp ay euh, yeneen saat nañ nekk euh, tu vois donc affaire bi nice na li si war a am yëpp am na ci donc talent bi mooy feeñ ñi koy jël yëpp boo gisee ñoo ngi am ay progrès seen kii donc nañ ñëw jàppale ñu affaire bi gën a nice ñëw soutenir waa Bargny surtout parce fii la affaire bi sasoo incha allah comme si essayer de faire des différences rek ñu tracé sa waa koñ également sa waa école est ce que ñoom aussi doo leen lancer message pour ñëw aussi mbapat ci affaire bi si nañ ñëw nañ ñëw en masse ñëw yaa ko gën a xam man du ma leen rusloo insha allah na def ma mën yëpp te li ma mën soo ko defee xam nga fii day xaar mais est ce que yaa ngi si répétition yi bu baax bu baax bu gisee sama voice bi nga xam ne bii ak boobee du benn maa ngi si répétition yu métti yu tar am na ku ma gis sax benn benn benn membre ak kii bu ma dajaloon géej bi passé plein air bi. maa ngi si réflexion yu baax. maa ngi si réflexion yu baax. Euh, tey may ma benn quatre mesures wala benn cinq mesures ñu xool lan lañ koy tëjee après nga tëjee bu suut seen xalaat yu gàtt ma soo bëggee carrière bu gàtt jëmal leen si sama xalaat bu gàtt bu dul màgg doo xalaat jéggi sa gàtt musique pour man la ni talibeeg oto et c'est comme talibeeg potom ku yoddu sëxët ba ñu naan ko toxono dégguma jat man comme ikam bi toko bi rap de man la oustaz nag aca mam baala nga tàggatoo ñu xam ñu lay seetaan yéen gars yi ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di sarawataat ah, ñoo ngi leen di ñoo ngi di ñoo ngi leen di fois parce que affaire bi maa ngi gis maa ngi gis ci foote et tout donc euh, maa ngi wax ngeen ñëw en masse le 20 incha allah ce 20 novembre incha allah janvier ngeen ñëw en masse place publique fii nii amul dara ñëw yëngal la yaa ma gën a xam ñu jaxase fii nii yëpp yaa ma gën a xam affaire bi jarul

fra ma min mista aba en babs resfiabu yo nek ci canal mais aba sama xuloo walé la gaay brakza yeah Yes, yes, yes, yes, tout become Rio. Donc, on est ici, hein, donc, au Sidouane Boub Koloban. Dans donc, un rappeur. Aja Gaye, nous l'avons du BG, de l'NCR, vous êtes aussi sur la BTV, du Nekrantre, moi, moi, euh. Colobane daal di seet si benn rapport boo xam te ne de Jéré Flem mu nekk euh, artiste boo xam il est qualifié donc si final rappelé compétition bi nga mu ngi amee fële si diwaan bu Bargny donc euh, tey ñu ñëw euh, diwaan bu Colobane daal di seet si notre gars ah Zola Flem ma lay nuyu di la bëggee di la bàyyi nga nuyu sa gars waaw di la nuyu di nuyu ñi nga àndal di la dalal jàmm ne la bienvenue à Colobane ñu ngi juste euh, si buntu maquette bi waaw di leen bëggewaat bu baax a baax a baax di la wax Cissé Boy Zola Fresh sa artiste. yes Cissé Boy Zola Fresh sa artiste comme ni ngeen ko déggee noonu ah donc Zola Zola borom Fass tey nga ñëw ànd ñu fi nga ne moom mooy diwaan bu Colobane. lan lan lan moo waral loolu quoi déplacement boobu au lieu nga yóbbu ñu Fass fi nga dëkk tey nga ànd ñu fi waaw déjà Colobane Fass Gueule Tapée lépp benn la même commune bi la tu vois tey bu ñu demoon tamit Fass aussi tamit day mel ni sama gox laa nekk mais dafa fekk ni fii la lépp sokkee ko quoi fii lañ defee suñu enfance ñun fii lañ xam fii lañ ba ñuy door a dugg si rap voilà lañ nekkoon tu vois donc Fass am na lu def si ñun. tey moo tax fépp ñuy dem dañ koy représenter waaye mais Medina Colobane Fass Gueule Tapée lépp benn la man doomu Ndakaaru laa waaye. dafa leer ma dafa gën a tee leer donc tey mën nañ ne euh, tey sa doole fii la. waaw man moom sama doole moom mi ngi fépp quoi sama doole fii la Fass la Medina la Ndakaaru la voilà loolu am lu may wax quoi. yes donc tey ñu gis ne Rap Rev nekk. donc euh, sa quatrième édition mu nekk si quatrième édition ah nga bokk si qualifié yi nga xam te ñoom ñoo dem euh, final bi nekk compétition xam te ne dafa métti tey ngay préparer li nga xam ne moom mooy compét ñun dañ naan jekk nañ sax ah. amuñu lenn loo xam ne ñu ngi koy sikki saak voilà quoi ñun préparer nañ lu ñuy préparer avant ñoo dem final kon jekk nañ daal si gàttal. voilà jekk ngeen daal kon fi mu nekk ni yow tu es est-ce que xam nga li lay xaar si compét. non man sóoraale wu ma lu may xaar man lu ma indi lu ma indi man loolu laa yaakaar quoi. yow daal li nga xam quoi yow. waaw mu ngi noonu. kon yow sóoraale woo yeneen rapport kon yeneen rapport mënuñu quoi. non wu ma leen sax. calculé woo leen. Ah, non non dégg naa man man kese maa dem final quoi damay dem rek gars yi jox ma trophée bi nii incha allah. da ngay dem rek gars yi jëlee trophée mais est xam nga ne ay rapport yu ay rapport yu rapport yu crax nga koy siifee ay bool yu am talent est ce que xam nga loolu. waaw booy am nañ talent yéen yéen a gis talent yooyu wala quoi hmm. mënuma len waxal dara quoi man sama côté la xam sama niveau oh, non man dang nga may ñëw nga wax ma lu leer dang nga may ñëw nga ne ma ah rabeur ma len mën wala yow moy lo ñom ñep ma len man ya len mën waaw les compétitions ko pare nga pour andi ko Colobane yóbbu ko bi andi ko Colobane dem face waaw waaw moy luma la wax rek motax mané la ñun jek nañ jour yi lañuy xaar rek inshallah ñu dem jëli final bi indi ko fi du du leneen lu ñuy sikki sak paré nañ si côté yépp inshallah kon daal fi mu nekk nii lépp assuré na lépp nice lépp RAS quoi muy cool. man moom nice man man daal aw ma dara lu may craindre quoi. tu vois ma dara lu may tiit. ñoom jaaxaluñ ma kenn si ñoom jaaxaluñ ma ñeneen ñu dul ñoom sax jaaxaluñ ma voilà képp ko si xam na nag danga pare woon pour am yaakaar da ngay gagné compétition bi voilà quoi ñun yàlla ñu yàlla may ndam rek. yàlla ñoom ñëpp seen yaakaar dina tas. ah ma waxuma loolu yàlla. yàlla non non seen yaakaar ne tas quoi dañuy ñëw mais dañuy ñibbiwaat. waat ah, non dañuy ñibbiwaat nag. Ah. yaa yow gëm nga daal yaa yëg affaire bi. moom ma ko sax laam-laamee. waaw ah, gars yi ñoo ko déggandoo ko déggandoo gis nga loolu dafa gën a leer donc loolu dafa gën a tee leer léegi Zorefra euh, Zorefra donc may laaj tey lan lañu mën a xaar si say fans tey lan lañu mën a xaar si sa ginnaaw si biir compétition bi. waaw lu ñu mën a xaar bëri parce que compétition bi euh manam nekul compétition bu ndaw quoi en fait mam gaay buñ ko tegee fo xamni ni man tégna ko fu sori parce que dina jouer lu bari sama carrière bis rawatina na nak ma ko waaw dilay wax tamit après compétition bi dañuy continuer ligue bi nek si projet yi xam nga parce que amon amoon na affaire yu bari ñu doon waajal mais compétition mo taxone ñu pause parce que mënuñu ko bolé kii dañuy concentrer aussi ben affaire kon tay loolu non bu démé ba jall tamit. voilà dañuy continuer waat liggéey bi nekkaat si yeneen affaire mais vu que ni au début compétition c'était privé donc euh, avec bi yëpp si biir salle lañ ko doon defaree tey ñu jël compétition bi génn ko teg ko public nii tey tey lan la ñu mën a xaar si Joe Frame bi si Joe Frame du ñëw ba foofu di xoof xam nga nekk nekk si public dafa yomb si biir privé nii caméra et tiim c'est facile quoi dafa yomb léegi ñu jël compét bi def teg ko euh, public donc gars yëpp war a taxaw xoolal tey. qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut attendre boobu lu ma miin la quoi. waa hmm. man ay public moom jaaxaluma quoi dawul sama yaram. waaw kon yow vu que ni daal li ngay waxee nii yow tu es jël trophée bi rek daal di ko andi ko la baat. barki yàlla wala daal di ko yóbbu Fass. loolu kese laa bëgg te lool xam naa ni suñu borom dañ ma ko defaral incha allah waaw xam naa loolu. kon yow gëm nga ni par compétit bi yaa xam ah bon mais léegi loolu dafa am si ay raisons yoo xam te parce que man xam nga c'est facile c'est facile nga ne ma damay ñëw jël affaire bi damay dem xam nga mais da nga man si fii laa ko teg. compétition duñ ko gagné dañ koy fokkati man dama koy ñëw fokkati. waaw. yes gars yi ñoo ko déggandoo ah nee na compétition duñ ko duñ ko gagné koy ñëw fokkati moom nag ah, pare na pare na comme comme ni ñu ko waxandoo mais tey aussi da ko séexal ay rappeurs yoo xam te ne duñu ay rappeurs ndaw parce que boo xoolee rap nekk compétition bu mag ah, nga bokk si ñi xam te ñoo qualifié. donc tey nga koy siixal ay ay ay ay rapports yu mag est-ce que c'est facile da ngay ñëw rek jël ko noonu est-ce que dina yombe noonu. dina yomb trop. dina yomb trop mais foo ko teg. non dina yomb parce que man mun naa wax man bokk sama gëm-gëm lu ma mënul may si game bi amul te yow ma si compétition bi kese am naa yeneen projet nee naa la kon man rappeurs yi nii man taxul taxuñu may rap quoi taxuñu jaraluñ ma comme dib nu mu ko waxee jaralu leen may génnee sama deuxième suuf <laughs> noonu la ma demee quoi. kon ñu daal premier souffle ngay ñëwee pour jël compé bi dem sa premier souffle rek baax si ñoom. parce que ah, ah, deuxième souffle bi moom ngay ñëwee pour jël compé xajul si ñoom quoi. si ñoom. day diis si ñoom trop. day diis si ñoom. day sa ragal loolu. Eh, dama leen ko ñenee damay ragal sax mooy loolu ñu yem fa. te dama leen di ñaanal ñoom tamit xam nga lépp ñu bëgg seen carrière aussi tamit ñu am ko ko quoi mais bi moom nañ ma ko bàyyil rek te xam nga te xam ne instant yi affaire yi féete boor ba pare waaw waaw leer na leer leer na ndañ daanaka leer na ndañ donc euh, ni ñu ko déggandoo ñoo ko déggandoo ñëpp Zola Fresh ah gars yi na moom pare na ah waa ginnaawam nañ gars yi yëpp pare nañ mais Zola Fresh donc léegi pour nga assurer say fans dama bëgg nga may benn quatre mesures rek boo xam te ne ah say ko déggee dinañ xam ne kii moom pare na quoi sa morom yi aussi ñi ngay compét defal compétition bi gaay xam nañ saa yi compét bi yaa ko yaay borom quoi benn quatre mesures rek. Colobane das ma fi am na black am na jaam gisoo ni ñoo ngi fëgg jaay suñu maquette yow fi dóor waar la ñu xam fi am na booy dégg jàmm am yi booy kose yee ceek borom xol bu ñuul du forog borom xol bu weex gom si xol du wér waaye ku nekk ak nu koy dundee da ngay sonn rek li nga bëgg si man du nekk def mission bu mu soo nangu di ma gunge waaye bul ma weer sa doom du delluwaat sa wet mama du ma réer gannaaw xam naa samay wareef malaat la du dañ mais nee nañ dama xaw a man man xalaatuma leen dewoon naa balaa ñu maa lekk baa ma yamale ko foofu. yee maa ngi koy yamale foofu parce que damay bañ mu ëpp quoi. damay bañ tiital gars yi quoi. <laughs> damay gars yi xam nga. après gars yi xof bañ a ñëw. waaw waaw waaw loolu nag loolu surtout loolu <laughs> <laughs> léegi tey donc nga gis euh, Rap Rev nekk édition Euh, lan ngay wax tey waar Rap Reef ñi nga xam te ne tey ñoo teg compét ba tey bii nekk seen quatrième édition donc tey yow lan nga lan ngay wax ñuy organiser compét bi jël projet boobu def si xaalis bu bari bari bari pour promouvoir les artistes ak les rappeurs donc tey lan nga lan ngay lan ngay wax waa Rap vraiment damay apprécier seen liggéey ko apprécier na seen liggéey bu baax a baax parce que si mel ni Rap Reef am na yeneen kii yoo xam ne aussi tamit ñu ngi def ay mais Rap bon Euh, surtout quatrième édition bi kon dañuy gën a ñaan yàlla mu gën a jëm kanam quoi parce que li yombul quoi jël sa xaalis këpp ko si pour juste euh, promouvoir ay talent yi nga xam ne ay talent caché lañ voilà c'est très important quoi voilà vraiment dama leen di ñaanal yàlla liggéey bi gën a jëm kanam quoi waaye yes yes mu ngi noonu gars yi donc rap rêve dégg ngeen ah, ñu ngi ñaan yàlla liggéey bi xam ñu ngi ko sum parce que au début on avait commencé avec donc les rappeurs de la commune tey yàlla def ba ñuy def si département bi yëpp di jël artistes yi ah yàlla mën def aussi ba mu nekk rap euh, compétition boo xam te ne c'est c'est c'est international ah, tey euh, Euh, de la presse kan kan kan ngay woo euh, si li nga xamante ne moom mooy euh, compète bi gars yi balaa ñu tàggoo nga xamante mooy fan si parce que au début déplacement bi méttiwul woon parce que mënoon nga doon yow kese nga dem mais actuellement nii ah da ngay xaar yi sa ginnaaw artistes yi fan si yëpp war a ñëw déplacé wu dem ba diwaan bu Bagonale City tey kan ngay woo si lii bi waaw di profito di woo ñëpp di woo waa Colobane waa Fass waa Médina Ndakaaru yëpp. rawatina sama gang bi milieu indice ñoom ngay seen nii ay ñoom caatu kolobaan ñoom laay pël ñoom prési ñoom papa ñoom colon ñoom Bachir xam nga ñoom wuri ligma gars yi fi taxaw yëpp ñoom dev xam nga gars yëpp maa leen di woo quoi ñoom mbër xam nga caatu kolobaan ñoom ñëpp ci biir quoi xam nga ñu ñëw jàpp si incha allah ñu taxu combat bi dem jëli suñu final ñëwaat amul leneen lu ñuy craindre bu soobee yàlla yes yes gars yi ñoo ko déggandoo ah ñu ma dégg nga wax yëpp waxoo ma waaye ñëw si fair play ñu jël affaire bi si fair play yóbbu ko si fair play. non rap amul fair play. Ah. amul de kii la quoi. affaire de bande la. affaire de gangster quoi. waaw ah, te yaa ngi yaa ngi kolobaan nee naa la boo xasee ba tudd kolobaan voilà jarul may yeggali leneen lu si des. kon yow pare nga pour ñu xaar lépp si yow quoi nga jël affaire bi yóbbu ko daal di dem. dama koy foxati du ma ko jël mais dama koy foxati man loolu laa la wax. final duñ day jëndee këfet waaw këfet yóbbu yi di leen bëggee ah di leen bëggee waat di leen kontaanee bu baax baax ah c'est votre homme et serviteur qui nous répond au nom de DJ DJ yes DJ Madser donc tey ñu ñëwoon fi nga xamante ne moom mooy diwaan bu Colobane chercher un artiste donc euh, muy waajal li nga xamante ne moom mooy final euh, compétition rab ref quatrième édition ñu koy amal fële le 20 euh, fële sa place publique bu Bargny tey lan ngay tàggatoo tey ah boo doon tàggatoo. waaw di bëggee ñëpp. Euh, di rafetlu seen teewaay fii vraiment métti na fa ngeen jógee sori na Zola Fresh jaral leen ko ngeen ñëw fii kon vraiment amuñu seen fay quoi yal len leen yàlla taxaw sàmm leen xam nga voilà di leen bégee di bégee Ndakaaru yëpp Sénégal àdduna wéngal këpp ñëpp maa leen di bégee di leen siyaar waaw loolu laay tàggatoo. yes jaajëfate di ko kontaanee bu baax a baax donc Zolo FM donc gars ñu ngi woon fi nga xam te ne moom mooy diwaan bu Colobane comme ni leen ko waxee woon ni ko Mayra defee noonu laa koy defee dañuy génn waat dem si yeneen dëkk dama seet yeneen artistes yi artistes yi toog leen ngeen xaar ñu nga xam ne dinañ ñëw seen diwaan daal di xool nan ngeen di waajee la compétition rap compétition Big Up BTV jaa ngeen jëf salaamaaleykum sama gars yi salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum comme maa leen ko digoon léegi ah donc jigéen nañu si ay rappeur donc tey dañuy ñëw fi xam te ne moom mooy diwaan bu buun ñëw fi xam te ne donc moom mooy aare euh, Fourno daal seet si un boy rappeur pétri de talent il répond au nom de Selmaen aca mu bàyyi mu bëggee gars yi ñu laaj ko ay question laaj ko nu muy waaj li nga te ne moom mooy compète bi donc ñu ngi fii diwaan bu buun Selmaen waaw ngi laa bëggee delloo bëggee bu baax ngeen. loolu nekk. sant comme nii rek. ba am jàmm bu baax. ay sant bu wér a wér a wér naay. la nga nuyoo sa gars yi nuyu uh, téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw salaamaaleykum waa Bargny toujours visible salaamaaleykum Dakar salaamaaleykum Kër Massar salaamaaleykum Boune salaamaaleykum Sénégal xam nga di nuyu waa sama secteur waa Boune Arifuna jàmbaar di nuyu sama gars yi teew di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu Babs xam nga moo loolu di leen bëggee ñëpp gars yi di teewlu di rafetlu maanaam teewaay bi mooy Aïcha mu ngoog ah ñu koy kontaanee moom tamit di ko delloo bëgg ah di ko delloo siyaara bu wér a wér di ko delloo siyaara bu wér a yes mu ngoog fii mooy ful buun ah buun buun na jàmbaar lépp lu am rek mooy loolu ah ah fii ghetto bi la ghetto bi la donc euh, ginnaaw bi nga bëggee gars yi ah, gars nga siyaar gars yi yëpp donc tey ñu waaj nga xam ne moom mooy compétition Rap Rêve bi nekk quatrième édition donc nga bokk si nga xam te ne ñoom ñoo qualifié à la finale tey loolu la ñu mën a xaar ah nan ngay waajal li nga xam te ne moom mooy finale bi waaw balaa tout d'abord damay damay damay dama leen remercier bu baax bu baax si initiative bi parce que affaire bu nice la muy Rap Rap édition 4 xam nga nekk affaire boo xamante ni wax dëgg yàlla moom affaire bu cool la bu nice la xam nga di sant yàlla tamit bañ si bokkee di sant yàlla tamit bañ demee tey jii nii xam nga rek ba bokk si ñi nga xamante ne maanaam qualifié nañ amaana du suñu jàmbaar mais dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax leen wax ne nag ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy waaj comme ni ñuy waajee yeneen business yëpp yëpp yëpp waaw ñun lii suñu noos la ñun moom c'est pas la première fois ñuy dem compétition wala ñuy final wala ñuy jël donc ñu ngi waaj bu baax di jox cëram incha allah bu la vaillé xam nga ñu jël si luñ moom quoi. waaw incha allah incha allah comme rappeur yëpp li ñu demoon yëpp ni ñu koy waxee ah dañ koy waaj ñu jël si liñ li ñu moom xam naa ne compétition moom dina metti parce que rappeur yëpp nee ñoom dañuy ñëw jël si li nga xam te ne moom lañ donc tey Selmane est-ce que yaa ngi xam euh, yaa ngi xalaat li lay li lay xaar si jour compét bi yow waaw maa ngi xalaat li may xaar joob la rek ah. parce que parce que tey dañ dañ dama seet ay rappeurs ma xëy seet ay rappeurs ñu toog déglu. Euh. mais rappeurs yi dañ dañuy pare nañ fi mu nekk nii de. pare ñoom dañuy préparé pare wuñ sax. dañuy préparé dañuy préparé. ay gàllankoor. ayca <laughs> ñoom dañuy préparé lu grand laa lay wax. ñoo déggandoo rappeurs dañuy préparé pareeguñu ah donc rappeurs dañuy préparé pareeguñu loolu la Selmane wax Selmane. waaw dafa mel trophée la de. waaw trophée la. Hmm. urban style la woon quoi ñun final ñun yoon bi xam nañ ko. kon kon kon kon déjà déjà déjà ah saay saay saay gaañ na gars yi déjà saay gaañ na gars yi que dañ toog waa ji andi trophée ñoo teg ak mooy wane est-ce que tamit lii ça montre que yow da ngay demaat bari ñu andiwaat deuxième trophée. bari ñoom loolu maa moom loolu sama alal la. yaay borom <laughs> li ñaa ñoom parcelle aja mu ngi noonu Sélmane ñu koy béggee bu baax a baax di ko kontaanee bu baax a baax tamit aja tey Sélmane euh, lan lañ mën a xaar si yow tey aw en personne ah nga nekkoon euh, Raprev compétition ñu mu nekkoon compétition boo xam ne au début privé la woon tey mu ñëw ñu war ah bari ñi yëpp toog ah sa gars yi ñëw donc rappeurs ku nekk juge si dëkk bu nekk parce que au début c'était euh, compétition boo xam te ne euh, si département bi si commune bi la si commune bi la amoon donc tey dem ba doon département xam te ne yëpp ñooy ñëw tey yow nan ngay waajee euh, bés bi. waaw ñun mbégte lañ koy waajalee ah <laughs> parce que comme ni nga ko rek parce que boobu léegi ñu ngi si jongante bi quart de finale ñu ngi si demi finale bi lépp ñu ko def huis parce que xam nga rek ak ak situation la woon quoi ak barñi bi xam nga rek di leen xam nga di leen masaw baax tamit loolu noonu waaw mais di leen wax que ñun final bi amaana maanaam public bi ni ñun moo ñu gënaloon sax parce que compétir maanaam gars teew boo ko dag compétir boo xamante ne da ngay nekk wi kulo wi de xam nga ne lu bëri loo xamante ne maanaam daal a mën que xam nga rappeur toog nii si caméra wax lu leen ne te compétition bi ah, nga ah? pare da nga ma ah après ñu après ñu mayaat ko ñu dem faar xool. nice bilaahi. non final bi nii. non du yomb gars yi yow la nga xam du yomb sax bàyyi. kon bii que ni mu ko waxee nii daal final dafa mel dañ koy game quoi. non sama game la du seen game. ñëw jël si li nga moom. bilaahi damaa lewle. andi ko fi. gars yi xam nga ne yii àbb nii nii man dama lewle dama dem jëli yi ñëw andi. yaa moom maa por maa ko promettre loolu incha allah. ayca mu ngoog léegi sax nag dañ demoon seet ay rappeurs. donc euh, rap de compétition. chaque fois dañuy dem génne xool rappeurs yi nga xam te ne ñoom ñoo qualifié final rap donc mu nekk émission euh, euh, compétition boo xam te ne compétition bu mag la donc tey euh, lan nga mën a wax si ñi nga xam te ne ñoo organiser rap rêve ba tey bii ren mu nekk seen quatrième édition. waaw ah, yéen moom bàyyi yéen moom dañ leen di dañ leen di dañ leen di dañ leen di remercier bu baax a baax a baax quoi parce que boo xoolee jeunes talents yi fii nii amuñu lu dul lii pour wane seen bopp. amuñu leen lu du lii amuñu benn plateau boo xamante ni dinañ fa jot invitation wala genre affaire yooyu maanaam si genre compétition yi nañu am pour maanaam wane suñu talent wane maanaam gars yi xam ñu quoi donc initiative bi mooy li ma wax sànq initiative bu naas koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax waaw te buñu sañoon tamit du fi gëj quoi day jóge fii bàyyi am 5 bi 6 bi dem bañ koy defee ay grand théâtre bañ koy defee feneen ak feneen parce que tamit lii rek lañ am waaw te xam nga nit ki moom ko jàppale mu wane boppam rek maanaam jàppale nga si lépp dañu lii lañ am moo suñu aar moo lépp donc yéen tamit di leen bu baax waa Bañu toujours visible encore une fois bu baax a baax a baax di leen wan que initiative bi nice na nice na parce que mënoon ngeen ko def rek yemale ko Bargny mais léegi mi ngi ni génn dèjà man maa ngi dëkk ba buun ne ñii ñi ngi dëkk Fass ñi dëkk feneen feneen donc affaire bi mi yes comme Selman ni ko waxee donc compétition la boo xamee ne woon comme ni ma ko waxee woon léegi rek au début dafa nekkoon compétition boo xam te ne euh, Bargny la emoon tey mu dem ba nekk compétition boo xam te ne national tey ñu bëgg nañu aussi mu doon compétition waxtaan si international ba Sénégal fépp fépp fépp fépp donc euh, gars yi ba àdduna bi yëpp donc ñu leen di bëggee di leen kontaan yéen ñi xam te ne tamit yéen a ñuy topp mais seulement dama bëgg nga may ñu benn quatre mesures rek boo xam parce que dama dama dem si gars ku nekk tegal ma benn quatre mesures si la dem am dëkk bu ñu dem tudd tuur bi nag laal laal moo tax bi mu ñëwee gars yi ne Selman moo ngi nii ma ne non waaye laal Selman <laughs> capitaine Selman te sama capitaine li dama bëgg nga may gars yi si daan benn benn euh, quatre mesures ñu xool fan ngay fële tey. waaw avant mooy mooy quatre avant mooy mooy gars yi quatre damay damay non non dinañ si ñëwaat dinañ ñëwaat di nga woo gars yi eh, ci kaw solo ma keroog yee maa ngi foon ceeg ok maa ngi booy ci kaw soxlaw ma kero zen ig si sama takkandeer soxla soxlaw ma keru kenn yàlla moo ma taal soxlaw ma leeru kenn one day robbi dina fay soxla wu ñu weeru kenn robbi bu doon crime booy ñu daaju pen def fi lu ñu deful booy defal taatu neen yàgg nañ si njàpp moo tax gawar feeñ yàgg tëju ci càmba di maan yow ba sagar xeeñ këtt lay def duñ ne wokk wala xuri si géer nga bëgg yàlla Ukraine man la booy si pour seer bay doo gis projet bu ruus fii anil sa indee teg sa cin doo dégg yow mu suus fii <laughs> yes loolu dafa gën leer dafa gën a teel neex ah aca dafa gën leer dafa leen rap de compétition la boo xam te ne ça va être dur gars parce que ay rappeurs fépp fu ñu dem nga gis euh, rappeurs yi war a seen temps donc mu nekk compétition boo xam te ne bi bii pa euh, dañ koy def fële sa place publique bu Bargny donc le 20 ah le 20 janvier di woo gars yëpp ñu daal fay teew donc tey Selmane euh, sànq yaa ngi doon wax ni mu bàyyi la nga bëggee yi nga xam te ne mooy sa gars yi ah, nga xool yi nga xam te ne tamit ñoo ngay woo pour ñu jàppale ci bés yi vu que ni au début transport du metti parce que yow kese peut être yoy and yow ci manager tay nga wara dem am mbolo wala lu ay car wara a ñëw foofu noonu ah, ah mbolo bari ñan ngay wo ci ci ci sa bëss bi. wa bés bi man ma ngi si woo ñëpp ah maa ngi si woo ñëpp ñëpp ñëpp plus particulièrement ñi nga xamanteni ma maa ngi ñoom suba ngon ñoy and xam nga muy wa ru rabbi ma leen wo chat ba chat commencé ci kaw ba ci souf boom ri 15 ten bi play bi darussalam porte bleu ñëpp bàyyiwuma kenn del wax ni manam li sen yëf la ñoo bañu dem jëli ko xam nga sen dom mo woote sen dom sen artiste mo woote waaw di sant bu baax nak sama patron di ko kuro bass di ko sant bu baax waxu deug yàlla day japp ci business bu baax a baax a baax di wax nak nañ ci gëna japp waaw ndax yoonu ndaw da yoon ndaw du gaaw dañ japp ci transport wi japp ci business da affaire xam rek mo lolu quoi yëfu yëfu yëfu ma comme niñ koy defé sa su nek han ah, ak euh, dem set nga xam ñu dok ñuy arrêté donc ñu ba sen diwan dal di len béggee dal di len kontaane sen wa diwan ba mais seulement sank ya? ya, dama set artiste mu ne ma compétition bi dama koy dem dama koy jël parce que ma xam mom xam nga affaire yi font la ko jappé quoi man do do bëgg nga rassurer ses fans quoi nga ne len oh compét sama combat la won ma xam mom man dama dem jël ko lool la bëgg di dégg. voilà néna ñun Tidak lewle. day dem jëli ñëw dañoo lewle. est-ce que tamit est-ce que du caméra yi quoi rek. demal YouTube nga tàmbali capitaine Seydou Mayel. waaw ah. urban style nga xool. dama ko foqoon yi gars naan ay mënul nekk ak mën a nekk bu dem jëli ko parce que maa ko moom. Ah. ma teg. kon fii fii leer na nañ fii moom ah saa dama nañ mais dafa mel ni nag ah euh, fii tamit yi pare nañ donc yaakaar naa waa waa waa buun. waa are are Furna Jàmbaar mais seen tur bi tamit nu muy ñaawee buun ngeen bëgg see teg Furna Jàmbaar. timit timit timit timit yéen nay timit sax ah timit <laughs> ah, mooy loolu quoi. jàmbaar yaa ngi nii de. ah jàmbaar yaa fee waaye jàmbaar yaa ngi nii. waaw loolu dafa gën a donc ñu ngi leen di woo euh, le 20 donc fële nga xam te ne mooy place publique bu Bargny donc ngeen accompagner seen seen seen ji ngeen support ko ba mu ñëw jël ci nga xam te ne moom mooy donc compét bi comme que ñi ko ñi ko bëgg mais yaakaar naa sa yaa yaa mën a euh, yéen fans yi yéen a mën a doole seen artiste ba mu ñëw jël ko donc au début c'était privé donc tey mu dem ba nekk public donc nous vous donnons le 20 foofu à la place publique de Bargny. yes donc Souleymane jox nañu kàddu gi waxtaan ak moom donc mu leen jox rendez-vous yéen ñëpp aja dafa mel ni ki ñu toogal nag na ménagère am la grand am la donc dañ koy jox kàddu gi laaj nu muy waajee bés bi na laaj ko moom nan lay waaje li nga xam te ne moom mooy compétition bi ndax day dem jëli daal dégg naa yaa bëggee frère. tribunal la Seba la. Seba maa ngi lay bëggee bàyyi la nga nuyu gars yi. maa lay bëggee gars yi. di sa gars yi. di bëggee ma meen sel mayen ma meen Ozil aussi. voilà di wax ni ñu ngi rafetlu initiative yi. Euh, juste rek di wax gars yi ne ne sànq da wax benn wax quoi danga ne buun. Euh, turu buun combattant moo koy tudd. xeexkat jëlikat. moo koy tudd quoi tur boobu noonu histoire la. seulement comprendre na histoire bi lan la mooy xeex rek jaayante suñu laayef rek quoi parce que buun mooy nit ku xiif mais li ngay xiif lan la quoi ñun dañu xiif ay trophée lu dugg si dañuy woo gaay yëpp xam nañ buun naka lay demee si compétition dem nañ demaat andi nañ fi andiwaat fi kon bii moom gayaan dañuy tegaat jéego bi fi ñu ko tegoon rek quoi seulement bettuñu si andi ko ah xëy na yow lay bett mais ñun bettuñu koi parce que comprendre nañ ko te xam nañ kan la te xam na lan lay job bu ñëwee rek gars yi dinañ xam ne kii pare na quoi. kon te du te bi sax mooy tax a jóg quoi vision bi looy na lool. xëy na lii dafa nekk si trajectoire bi. voilà dañ koy fel rek jàll quoi gars yi fa nekk na xëy na ay artistes lañ. vraiment nice ma leen di sawdaat ñëpp mais di wax ne tamit gars yi dinañ leen gën a xiif quoi loolu kese la nag amul. mais gars yi dafa dafa ragal dafa ragal artistes yi. waaw c'est le dafa ragal artistes yi man a artistes yi artistes ne moom. compétition damay dem jël ko fa nekk xoolal mënuñu <laughs> mënuñu lañ ma wax carrément ñoom seen man mënuñu. waaw xam nga ñun dañoo participer participer yi te ñun tàmm ñu perte quoi. Eh. tàmm ñu perte lii rek wane na ko. d'accord perte kon xëy na dañ leen di bàyyi ak wax ji rek gars yi moom dañ leen di bàyyi wax ji rek mais bu jëf bi taxawee nii mais si kaw seen kii dee muyee la moyoo quoi. kii mooy artiste boo xam ne bu laay fee boo bañee yére bi ñax bi topp te loolu yomb si booy yi loolu leer maan eh, ay ca gars dafa gën a leer donc ay cadre la si doon sànni ah ne ñoom ñi ngi waajal li nga xam te ne moom mooy compète bi donc euh, le 20 moom mooy sa bar ñi daa ca gars yi donc je vous donne rendez-vous incha allah yéen ñëpp na ngeen ñëw teew ñëw sawdaat seen fan seen gars yi parce que xam nga dañ naan mbooloo mooy doole te yaakaar naa doole jën ndox la mais tamit doole artiste bi mooy euh, mbooloo bi nga xam te ne moom moo nekk si ginnaaw donc ñu leen jox rendez-vous kër yëngal comme comme comme ni ñu ko defee chaque année rek ah aca yaa ngeen jëfati béggee salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum sama gars yi di leen bigge baat di leen bigge baat donc après des communes des départements donc dañuy ñëwaat fi nga xamante ne donc moom mooy euh, diwaan bu Tivaouane Peulh donc bu ñëwee bu diwaan bu Tivaouane Peulh ne dañuy seet si un boy ah hein. il répond au nom de Real Taf donc tey moom mu bokk tamit si les qualifiés euh, si RAPREV compétition donc quatrième édition mu bokk si les qualifiés yi nga xamante ne ñoo ñëw def final war a disputer final bi fële euh, sa place publique bu Bargny le 20 janvier incha allah donc dama koy bàyyi mu daal di bigge gars yi daal di bigge ñu àndal ah daal di leen

la ñuy jox ñu nekk di wër si town bi gaan xam nga ay dugg ak génn tey bu ñu amee sens bii nii bokk si benn compète boo xam ne tey dañuy ñëw juste suñuy répétition la ñuy gérer xool nu ñuy dem fogatee final bi concentré aussi loolu dañ ciy am mbégte quoi. yes jaajëf ñu koy béggee ah donc koy béggee réel taf donc comme ni mu ko waxee léegi nii rappelé compétition la boo xam te ne donc dañuy ñëw artistes yi dañuy ñëw ñun euh, def suñuy moyens yëpp ñëw ba seet si ñi nga xam te ne ñoom yi daal di leen xool daal di leen xool tamit la ñuy li xam te ne moom mooy donc final compétition bi tey réel la tey nga nekk artiste boo xam te da ngay disputer benn compète muy Rap Rêve donc bi nekk quatrième édition tey nga ñëw bokk si artistes yi nga xam te ne euh, yéen a qualifié final donc tey euh, qu'est-ce que ça te fait. waaw avant tout dama ciy am mbégte quoi xam nga le fait que. ñëw si compétition ba ak si nii final mun naa ne tàmm naa ko sax puisque final moom doonul loo xam ne daf ñuy bett à chaque fois compétition buñ mënti dugg geen leneen la ñuy wax quoi pour dem jëli ji ko mais final moom dañ fa yegg te Rap Rev bii nii mun naa ne benn pas bu may tegaat ci sama carrière quoi xam nga te mun naa ne deux compétitions laa ne moo ma dese ci hip hop Galsen muy Rap Rev ak Flow Up te incha allah dama ko paree def si quoi. waaw loolu dafa gën a leer nag loolu dafa gën a leer donc moom ah comme ni mu ko waxee nii moom pare na yaakaar naa ñi sa ginnaaw itam pare nañ parce que vu que ni Rap Rev c'est une compétition boo xam te ne au début euh, dañ ko daan CG euh, privé donc tey mu dem ba final bi ñu war ko génne public est-ce que yow pare nga affronter public boobu ak. si bépp côté ah si bépp côté nee naa la fii mooy Tivaouane Peulh te lu dul sot mënuñu ko. qu'est-ce qu'on peut attendre quoi lan lañ mën a xaar si si si Taf parce que au début affaire bi affaire dafa yomboon quoi da ngay ñëw nga dem dóor rab caméra yi tiim la bàyyi nga wax mooy loolu mais fi mu nekkee nii na compét la boo xam te ne gars yi yëpp dañuy taxaw tiim leen xam nga ngeen nekk si kaw téye maag te fon bi war a yëngal. waaw mun naa la ne lu ñuy xaar xam nañ ko muy benn mbooloo bi nii indi ko foofu noon te incha allah dañu koy def puisque taamu nañ ko comme li ma la wax rek incha allah tulli bu gaa yi xaar gaa yi di xaar ci Real Taf inshallah dinañ ko gis le 20 inshallah allah lu war pour gagner final bi tamit dinañ ko def quoi puisque ñu ngi ci xam nga liggéey bu ci war tamit dinañ ko def dinañ jox final bi respect lépp lu ci war dal dinañ ko def spectacle lépp moy lolu dinañ ko def ci final bi inshallah kon la la on peut se préparer hein di wajj ki nga xam te ne Real Taf ñëw def lo xam te ay morom rappeur wala artiste yi def ko fi andi fi mbolo bo xam te ne andi ko. moom laa la wax sànq incha allah yaa ma gën a xam tournal bi kaar yi lay demare geen <laughs> tournal ci waan pël. bebeeku dem barñi yaa mu gën a xam dem jëli lu ñu moom incha allah. dama fay def loolu dafa gënantee leer donc euh, dañuy def donc tey euh, Rap Rêve au début moom xamoon nga ko te yow bokkoon nga si ah euh, c'était privé mu nekkoon si biir yi nga xam te ne moom mooy saal donc tey ñu koy génnee si public lan ngay wax say fan si ak ñi nga xam te ñoom ñoo lay jàppale pour jours yi. waaw comme dab rek comme nuñ ko tàmm di waxee rek sa compétition gars yi Tivaouane Peulh di leen woo xam nga venez en masse soutenir votre artiste comme ni ngeen ko yàgg a defee di woo ñëpp. te du ma wax sax Tivaouane Peulh kese quoi damay ne Sénégal puisque man fépp maanaam mun naa ne rek Baye Fall am naa fi benn naataangoo boo xam dafa may shout si bépp côté quoi moo tax damay woo ñëpp gars yi ñëw dooleel si Real Taf le 20 incha allah ñu dem defi ko mu jeex quoi te maanaam rab reef bii nii Tivaouane Peulh da soxla. puisque depuis maanaam bañ jugee si demi finale yi ba tey gars yi duñ jug si naam Real Taf kañ mooy finale bi kañ mooy sax damay am kersa pour tontu yenn message yi mooy loolu moo tax date bi moo ko gisee partagé ko gars yi tey nañ ma pare nañ pour dem defi ji ko ah, léegi fi mu nekk man su ma nga dalal sa xel nga xam ne mooy euh, sa fans xet nga xam ne ñu ngi lay silaat ma bëgg nga meema benn quatre mesures bu dal rek ma xool naa saa pare nga wala yëngal gars yi def lu lu cool ah tey Real Taf tey lan ngay wax say fans tey lan ngay di may benn quatre mesures man nga ma may ma partagé ko say fans ñu xool ndax yow pare yow man sama rap risque la ragal du ko def man la taf ku tek turon bi loxo respect exigé man sumay rap da fay dagan ñëpp ag suuf te ben bad du juk ni kaddu salmon fay jël nga ko dem prouver sama talent sa duut ken jangaluma dem brûler trace bi parcours ak fit budul mas iblis moma jonne ma don satan sen bir ci rap bi la ko waxe pour ñu amul degin, waxna waxu nit mais jine la ci melokan man may iblisu sey dem rap zalatan voir de Dieu pour le nouveau king taf elah tour bi def effet taxna na yi oh rapport yi tiir ngeen ah j' que tir ngeen fi dem na a ah. ci réel def dal na yëngal fi don meñu ben 4 mesures bu dal ah di wax ne gay kon préparé len parce que rapport yi mu ngi ni compétition 4e édition ah finale feulé le 20 donc gay yi ba jox rendez-vous yeen ñep da ngeen ko paré da ngeen ko xaar ah ñu dem fofu yëngal tey def tay lan ngay tagato ah lan ngay wax ah, gay wa waa rapport nga xamanteni ñu organiser ben compét bu melni nii o ay rapport yo xamanteni ñu ngi ci ci ah, département bu nekk ñëw andi len ci commune bi pour ñu war a defar benn compétition tey lan ngay wax waa Rap Rev waaw comme dab rek di am mbégte si ñoom xam nga comme dab sànq lu ma la waxoon rek laa lay waxaat ah. puisque yombul tey nga bokk ci benn compétition boo xam ne bàyyi tey sasuñ la dara xam nga lenn lañ la sas ñëw waneel sa talent quoi que comme li ma la wax rek ñun yàgg nañ bokk ci ay compétition ay compétition yoo xam ne bàyyi dañ lay jox ay plus de ay cent tickets na yàlla da nekk di dugg gan ci autorité yi ñu siy jàpp xam nga war a ñëwaat gan teg ay tey ñu dem ba faciliter ñu loolu noonu ñëw tegal ñu benn compétition ne ñu bàyyi juste ñëwal wane sa talent te loolu noonu mbégte lañ ci am xam nga mooy loolu comme lu ma la wax rek nag sànq nag final bi Tivaouane Peulh ñu ngi koy pare te incha allah lépp lu war pour ñu dem jëli ko dañ koy def mbooloo bu war pour ñu dem jëliju ko dañ koy indi incha allah jaay fa to waaw fin bi di shout sama gars yi nekk si ginnaaw nii waa BAT 717 gars yoo xam ne bàyyi mun naa ne ñoom ñooy réel taf quoi te réel bi fu mu mën tey egg ñoom la di leen shawda bu wér a wér mooy loolu temps bi nag moo ñu xoj sax moo tax yenn gars yi tëli si wuñu mais maa ngi leen di bëgg ñoom ñëpp a di leen shawloo yes yes gars yi dafa gën a teel leer donc c'était réel taf ñu ñëw ba diwaan fi xam te ne moom mooy euh, Tivaouane Peulh ah leen wax ne xaar leen ñu xaar parce que Rap Rêve final compétition la boo xam te ne ah euh, commune bi ñu ngi xaar artistes yi nekk bi ñu koy xaar artistes yi nekk bi yëpp ñu ngi xaar donc Rap Rêve rendez-vous le 20 avec ces rappeurs pétris de talent ayca gars one love je vous à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes avec euh, un autre boy parmi les finalistes de Rap Rêve, 4 édition, une compétition d'éducation de loisirs et de découverte. Un boy aussi petit de talent. Après avoir euh, dem fi nga euh, TP dem Boune ñëwoon Tëngéej fi nga et nous voici Taï Djokul C'est un boy également depuis qu'on a entamé cette compétition. Il ne cesse jamais de nous montrer qu'il a du talent. Mais monsieur, il s'appelle Mr. Caesar. Boy. <laughs> Ouais, t'as vu Oui, cool, Oui, hein. Yeah, me cool, muito Bah, bah waaw koo calme. ma bàyyi la nga ñëw nga xam ñu lay seetaan. waaw di nuyu di nuyu ah. waaw di nuyu waa Rap Rêve. Ah, di nuyu waa Rio aussi. ñoom moom à chaque fois ñoom laay jiital si nuyoo bi parce que tamit waaw mooy loolu. di la nuyu yow mii nii ak équipe bi teew nii yëpp. waaw di wax jaajëfa tey gars yëpp. jaajëfatee euh, Sida tey yow parmi les finalistes de cette compétition Rab Reer nekk euh, quatrième édition bi nga nekk koo xam ne tey euh, bokk nga ci nekk dem final am nañ également ñi nga xam ne te jaa ñu bokk dëkkoon tëngit bëri nañ ngeen doon ñaar ñoo xam ne dem nañ fi nga xam ne maanaam final tey yow loolu lan la lay def. waa di am mbégte ak contentement rek parce que voilà ñun moom yàgg nañ représenté Tëngéej gars yi xam nañ loolu bu baax te fuñ dem bon. dañuy jël drapeau Rufisque bi yëkki ko si kaw waaw loolu moom leer na si boppu ñëpp donc buñ ko defaatee ah, une waaw xam nga <laughs> troisième fois xam nga quatrième fois anyway waaw mooy loolu donc dañ si kontaan rek di bëgg waaw di wax gars yi ñu ñaw waaw ñu def loolu parce que des na. des na mais euh, Sida tey euh, yow vous étiez au nombre de euh, de quatorze au début instant bi ngeen dem au nombre de sept. ku nekk tey buñ fa demee def na moom final bi saa itam la koy yóbbu dem nañ buun waa buun na sa final bi buun la jëm waa TP Tivaouane Peulh la Tivaouane Peulh waa Bagana Siri bi nga xam ne moo leen di ñoom nee foofu lay des ah Tëngéej Gouye Mourid am na nga nee na foofu lay ñëw yow en tant que tey nga nekk sa fief yow est-ce que yow da ngay jëlee affaire yu bari ñu indi ko fii wala lu fa demee noonu mais gars yi dañ dem ba dañ bàyyi ba dem final soog di wax ne affaire yi day ñëw man depuis quart de finale laa leen wax ne affaire mu ngi fii. <laughs> kon voilà bu waxaate waxaatee confirmation lay nekk rek yéen a gën a xam. moo loolu affaire yi kon ñëw na ba pare si si la nga ko teg ci ci ci ci yaa leen dàq wala ñëw ci fa nekk yaa leen dàq rab wala. man rab ak liggéey. ah booy kon gars yi lañ compétition xamuñ dara. non waxuma ne xamuñ dara yaa ko wax. damane si man rab laa ko teg ak liggéey. kon comme ñooñ mënuñ rab mënuñ liggéey. non mën nañ rab parce que buñ mënu woon rab tamit kenn du leen sel kenn du leen sélectionné mais bon. waaw man daal xam naa ne. yàlla dàq rab mën naa rab te. non te assumé non maa leen dàq rab loolu loolu du débat. non si daal booy gars yi nekk si final bi nii yaa dàq rab. gars laa wax. ma ne. gars yi mën rab. Ah. aay nañ mais man maa leen dàq rab. te fan nga ko teg na yàlla leen tax xarab. non mais parce que dama leen tax xarab. Euh, euh, ñi nga xam ne tey jii maanaam mooy sa waa FIF nan la ñuy préparer ak yow psychologiquement mentalement nan ngay préparer li nga xam ne maanaam mooy final bi. waaw bon final bi nag je peux dire que pare nañ ko pare nañ instant yi bon xaar jours yi jot après ñu dem wane liñ liggéey loolu kese moo des mais pour l'instant nii moom. Ah. waaw si répétition yi nice. Yeah, cool. Ah. Nice. Répétition est nice. nice. c'est César, est-ce que psychologiquement, César, par là, mentalement, mais Mahira, yo, man, est-ce que <laughs> j'ai l'air de quelqu'un qui a ni Paraoul Paraoul, ah, ok. Euh, Après, Non, question. C'est à vous, les, les, les internautes, de juger ça. Mon garage. Mon kañ laa xam man ma tontu ko. ah ma bàyyi la nga tontu ko. waaw parce que euh, man boo ma xoolee di mais est-ce que ce public. ndax ñu fa ñu fa dem ñëpp gars yi nee nañ public bi moom waaye foofu ñu indi public est-ce que ce public pare nañ pour répondre massivement ki nga xam ne tey mooy Sida ndax Sida man xam naa la nekkul na tey laa la soog a xam yàgg naa gis ngay teg ay bagages parfois nga dem Makhira yaay président de conseil bi ah après mu demee leneen yaa ngi dégg mais est-ce que public gu Sida pare nañ. bon man Tëngéej laa dëkk. Uh-huh. waaw ñëw ba biir jokkul. jokkul laa dëkk quoi. donc ñun public quoi. tawuñu quoi nekkul suñ problème. côté public people ah. ni, non. c'est un faux débat. Ah. <laughs> kon instant bi daal pare vous kon message par rapport à l'endroit des autorités des hommes ressources qui se qui se résident au niveau de votre localité plus particulièrement nous nga xam ne au niveau de Diokoul lan ngay wax pour ñëw aussi abattre leur pierre à l'édifice. Oui, de l'en wax ne bon ñu ñëw jàpp ci combat voilà parce que il le faut quoi parce que bon affaire Rimon fal pour dem ce mu donc nous leen ngeen pour waaw rendez-vous c'est au sommet. le 20 6 6 mesures wala mesures comme ni fait ñu xam mais vous allez voir il va nous montrer qu'aujourd'hui il a du talent et il va ni euh, ñu koy waxee déjà vainqueur Rap Rev édition number four Ziza nee na moom lay doon may ma gars yi xool. ah bind leen ko ngeen noté vainqueur bi mu ngi nii de yow ay ñoom ñëpp taamu drill ma ñëw laal classique di dem ñun fàttewuñ hip hop ak ñi sànni baag bi si teen. bi gëpp daara ji dégeti xumaan pakoti ak kayiti yenn saa ñu teewal mbedd mu jee nekk fuu si kër gi des fois sa ndey liggéey nga jël soom bi def ko sa añ sa waa ko ñoo la gën sa quelque rëf yi mënul bañ moo tax ñu dem ba fàtte er mooy révolution si RAP du kenn ci yéen maanaam ñoom ay dañuy rab di dem te duñ ci génn gée mu jigéen di fen ci wen du kenn ci yéen ku sañ a woote guerre ci lëndam ba muy lee del pig di pel may añ di reer ñun dañuy foo nga mer mën nañ wax ne bëgguñu ma mais mënuñ wax mënuma daal football muuma jël arbitre bi réew ci def ko gumba ki nga rab gaa seen bi laane nañ ko xut ba suba pour ñu dégg lu du wolof king bi mooy buur bi te ñëw na le rendez-vous est pris mesdames et messieurs le voyons à la place publique de Bargny vous allez voir une finale qui sera tapissée dans l'agenda du hip hop Galsen vous êtes prêts are you ready for the show practice

dame' dem ma et nous voici aujourd'hui mesdames et messieurs Nyayo. c'est un boy depuis que l'événement a commencé également il se mouille main et pour nous montrer lui aussi il a du talent à l'état pur mesdames et messieurs il s'appelle Mr Khalif DP gang gang gang <laughs> ma DJ. Oui, <laughs> nice mais mais mais DP la ba dama am sama Il wuri lañ koy waaw waaye dafa tàng. mais wuy fan la dëgg. jam ñaa doon dëkk mais actuellement ñu ngi Dakar Dakar lay jógee. mais wuli bii baay bii est-ce que xamul naa ko seet. ah dafa tàng. mais dafa fees. mais lii bu ngi dëru. ba baale nga néew ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. yee yee yee islam islam islam laam ñii islam BTP islam Raprev xalif DP la ñëw ñi ngi jam ñaa doon say gars yi dañu seet kontaan ci seet si ah. Ah, sama gars yi nii ci ginnaaw affaire bi gars yi jël nañ ko ba pare ah saa yoo te fait quoi Khalifa ah? en tant que nga bokk ci compétition bi vous étiez au début nombre de 14 euh, ñu dem def 10 tey ngeen boo def nekk 7 rappeurs yoo xam ne tey ji ñoo war a dem li nga xam ne maanaam mooy final yow en tant que tey jii nga war a représenté dignement ta localité muy Diamniadio am na Bargny am na Tivaouane am na Bour am na Fass amna teugue tëngéej ñoom ñëpp tey bañ fa démé ku nekk daf naan man damay ñëw Bargny fekk fa la fa gën a baax moy final rap bi yobbu ko te ça fait quoi. yeah honnêtement c'est une grande plaisir ah. kontaan nañ trop ki euh, compétition bi ñu bokk. te kontaan nañ trop pour wane suñu talent ndax d'habitude man dama tay faral di wax sama gaay man mëneewu ci wax. xam nga man je préfère xam nga toog si Modou Coupe Diop heure wane li ñuy liggéey bu jotee ñu wane li ñuy liggéey te ci philosophie boobu lañ nekk di développé ba léegi nii quoi ñoo ngi ci di ko rek muy nice gars yi nag respecté naa leen trop mi ngi nice mais xam ngeen ni affaire yi niveau dañuy xaar booy bu ci yab rek la bëri tax. waaye ku ñu yab la bëri ba tax bokkul <laughs> benn. non xam <laughs> du bi yow nga comme ni ma ko laajee gaay kon gaay yi xamuñ dara. non xamuñ xamuñ dara xamuñ dara yaa leen dàq rab non du ma ne sax xamuñ dara ah. mais liñ leen indil la quoi liñ leen indil la en fait du seen niveau ñii góorgóorlu ku ci nekk mooy loolu gars yi shout out li ñuy def naaj na trop xam nga rek da nga day mel ni nga ne Ouzin Keita ak Wally Seck ah niveau <laughs> kon yaa ngi ñoom du niveau non non non du da ngeen di jàngal mooy loolu ok du niveau euh, beneen bi euh, tey

li ñuy liggéey sax du pour Rap Rev liggéeyuñu sax pour Sénégal man xam nga dañoo jugee ci benn xuub gis ngeen xuub bi fii nu mel fii c'est évident nga jënd nekk nit boo xam ne dañ lay tudd ci benn niveau bi quoi parce que li ngay li ngay dund la li ngay vécu la sa vécu lay doon quoi mais ñun tout le temps ñi ngi def loolu def la tout loo xam ne

mission la sas la ndax gis nga suñu gaay fii suñu filtre urbaine bi dañoo jël dañoo ñoom ñëpp dañoo ñëw ba ci sama kanam xam nga tegal ma ne ma gaay vraiment yow lañ dañ la bëgg jàppale ci say projet quoi te vraiment rafet rafetlu naa loolu ko gaay ñi ngi ñi ngi def le tout pour affaire yi jëm kanam xëy na nag xam nga dafa sottee bu mais ñi ngi ci yoon bi quoi honnêtement daal li le plaisir le de di de découvrir Khalif DP c'est ce n'est que le début du commencement moi loolu instant yi defaguñ dara defaguñ dara dañ nekk di technique nii ndànk ndànk grave d'abord aïcha dawaguñ dara. ayca la bi may est-ce que Khalif DP euh, parle na lyricalement pare na philosophie parle na de manière psychologique ah, mentalement lyricalement est-ce que DP parle na. ñu def mu di ma jël bu ma jëlee c'est la musique bu teg léegi woo gars yow mën nga pare pare bu yàgg pare nañ bu yàgg loolay daas fanaaral bi dee wax xam nga li ma wah, wax am final bu ko wax public ya, ya, public ah tamit pare nañ pour ñëw ñoom tamit tendre la pêche pour mën ko ñoom ñaar yëpp yi pare nañu bu baax ñu ngi waaj final mais waa leen wax pare nañ de wuyu ma waaye leen wax pare nañ de ma leen wax lan la ñuy indaale surprise la ñuy indaale mais bu ma leen wax lii la wala lee la mais en pare nañ instant bi pare nañ dañuy xaar bis bu jot rek bu dem jëli lu ñu am indi ko biir temps ah loolu kese la loolu kese la mais est-ce que gars yi nañ la tey boo doon lancer un message à l'endroit des des des autorités euh, municipales des hommes ressources ah yi nga xam ne tey résident ici euh, au niveau de Diamniadio pour nous te nous mën la jàppale pour wax final wax mbooloo wax final wax sama relation ak tey lan nga wax. damay lancer juste un message. suñu suñu suñu grand yi suñu suñu kilifa yi nga xam ne ñoom nekk ci réew gaa am na ñoo xam ne sax jot nañ gisante toog nañ waxtaan bañ demee final seeti nañ seeti nañ leen toog nañ ñoom moom waxtaan nañ ñoom euh, kontaan nañ kontaan nañ ci final bi te gis nañ ni ñu ngi def euh, évolution de la culture alaaji busal tuuti. voilà <laughs> ak ale baa ngi xam ñi ngi def ñi ngi gis ni ñi ngi teg ay pas yu remarquable ci culture bi ñu ñuy supporter mais xam nga rek affaire yi du doy parce que affaire yi bëgg nañ dem en masse dem jëli affaire jëli ko moo tax ma bëgg gars yëpp ñu jàpp ci seen doom la yéen waa jëm na seen doom moo leen di au niveau de Bargny xam nga yéen ñëpp ngeen ñëw ñu supporter xam nga ñu ci mën a def seen seen seen koom def ci ñu ci mën a def seen xalaat def ci ñu ci mën a dugal ay conseil def ci toog ñu dara jël ñoom ñu dem jëli loolu indi ko te ñu ngi ay yeneen ak yeneen i projet xam nga war ko teg mooy loolu affaire yi day gën a day a xam nga ci benn ascension lañ nekk xam nga war ko war a yëg quoi ah tey boo ma doon may benn sept mesures wala benn mesure loolu lay doon ñëpp maye nañ la nga xool li gën a naas li gën a cool li gën a tendance nga jox ko après nga euh, big up sa gars yi ñu mën a tàggatoo seeti leneen ma ne bu jegee lëg daa fekk mu gis fa intérêt man maa lay coob ba pare coobaale sa bës bu néew rab sama mot de passe ma fil sa flow bu xoobi daas rocci mi rocci ma rocci baaka jam ko seen xottu taa tepp tepp te doo fi law ay ni nga ñoo koy dundal rab bi kese suñu mbootaay yow la këytu soleil ni ñu koy defee dafa yomb mel ni messi ci bal lumière gën a neex a tëddee benn métis ci lal ragaluma def son Saga, nday kenn ku ne ci mais li def bro saaga neew ma ko daa ne ci man donu mako ko ci mam dëgër bop ak bëgg-bëgg ak loo mënti wax nangul ni mën-mën gi fi la dëkk gang gang dibi la esa baye ni ni dibi Mesdames et le rendez-vous est pris le 20 à la place publique de Bargny. Vous avez envie de voir quelque chose qui sera tapissé dans l'agenda du hip-hop Gals. Vous avez envie de voir une finale prestigieuse vous avez envie de voir une finale extraordinaire. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous. Ils sont sept. Et parmi ces sept, il y aura une seule personne qui va remporter cette finale. Que ce soit parmi ces sept que le meilleur gagne. Mais c'est le hip-hop qui gagne, c'est le rap qui gagne. Vous avez un dénominateur commun, moi le micro. Et voici, mesdames, messieurs, le vin. Vous allez voir parmi ces sept. Ils hyper talentueux. Gagne. What ça. Voilà ça. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang,